أحيا به الأرض بعد موتها وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز المبين ثم قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل فيما ورد عنه man adnabahu wa yadxak daxala annaara wa huwa yabki summa qaal الظلم ظلمات يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ثم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun qala taala man yaamal mithqaala darratin xayran yarah wa man yaamal mithqaala darratin charran yarah haza wa salawaatu llahi wa salaamu wa sallimu tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم bokki julliti gannaaw bi ñu sant Yàlla tabaraka wa taala ci xéewal yu ñu jox benn bootul gën a rëy lim ñu jox muy alquranul karim fi kitaabin maknuun laa yamassuhu illa almutahharuun moom sell ak set wécc ci jullit mu doon xéewal boo xam ne waxuma la ki ci bokkul ci diine waaye ki bokk ci diine te sellalul te setul te civilisé wul ni ko yàlla bëggee amu ci lend loo xam ne dana la neex wala mu neex sa moroom yow jullit bi yow nit ki kon su fekkee ne jox nañu na ngeen laab laab boobu kenn ku ci nekk mu ngi koy jéem def ci saa yoo xam ne jaxasoo am na ci digganteem ak bànneex wala mu am lu génn ci moom lu war jar mu sellal boppam yàlla ne tanazzafu fa innahu la yadxulu aljanna illa nazif ci ahadis qudsiya yi nga xam ne ñëw na rot sayyiduna wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma indil ñu ay ahadis yu ci ci wut internet wala mu jënd pass war na jullit bi mu am yu ndaw yoo xam ne mu ngi koy ngànnaayoo ci lan ci yoo xamante ne daf koy def muy lu koy niital xaaritatu tariq lu koy leeralal yoon lu koy jëlal yoon bi lu koy won fi mu war a mën a jaar nga xam ne dana dugg ci leer boobu ba jàll te du am lenn loo xam ne dana ko gàllankoor kenn si ñun saa yuy dem fu mu ragal dana ut ku mu àndal kenn si ñun saa yuy dem fu mu ragal wala fu lëndëm mu ut lu ko leeralal kon lan moo tax àdduna bii nga xam ne lépp a lëndëm lépp a jaxasoo mu mel ni lisaanu xaali dunia bu ngi wax ne gaaw leen ndax lépp a bon gaaw leen ngeen baax te baaxal ci jagal ndax yéen a ngi waaj a dem mu mel ni xaal bi nga xam ne moom la àddina di wax ak ñun ñun ñu mel ni ñu ko déggut gaaw leen ngeen set gaaw leen ngeen sell gaaw leen gaaw leen ngeen jaamu yàlla gaaw leen ndax mu ngi dem mu won ñu ay preuve yu wane ne ñu ngi dem mu wën na ay preuve yoo wane ne adduna bi mu ngi jeex mu wën ñu ay preuve yoo xam ne mu ngi waaj a jeex ñu mel ni ñoo xamante ne dara amul benn benn inzaar wala boo amul benn benn benn loo xam ne moo lay fàttali wala di la won wala di la yee pour ne gaawal gaawal gaawal gaawal gaawal yooyu yëpp lan moo ko waral cheytaani rajimi lain bi nga xamante ne jaxasoo na mu nekk nag minal jinnati wan naas duñ wax cheytaane kese waaye cheytaane boo xamante ne jinne la ak seytaane boo xamante ne nit la seytaane boo nga xam ne moom mooy jinne mu indee ko ci xel ak xayaal ci xel ak imagination ak xalaat di la won di la bëggloo di la gëmloo loo xam ne bëggoo jóge ci àddina boobu nga xam ne mooy seytaane nit ki di la bëgg wala pour yow nga bokk ci ñuy wax ne est-ce que wala kawe na wala moom moom lii moom moom lii moom moom lii te bés boo xamante ne jóge nga fi mu créer fitna problème sa diggante ak say njaboot te jamono boobu yaa ngi ci biir bàmmeel ñu jël ay kilo kilo teg ko sa kaw suul la xamoo la fi fekk xamoo la fi fekk waaye axakay xam nga ko axakay lépp loo xamante ne def nga ko ci àddina mu ak yow foofa moo xam lu baax la moo xam lu bon la alquran ne man yaamal mithqaala darra xayran yara su fekkee ne pépp suuf la nga def ko ci lu baax pépp suuf yi ñu la teg yépp benn bu ci ne day woyof ci sa kaw benn bu ci ne nekk tiyaabo benn bu ci nekk nekk mbaax benn bu ci ne nekk leer su fekkee ne du loolu nag kon kay charran bu dee lu bon la yarahu dañ ko yëg mu nekk fitna mu nekk problème mu nekk safara mu nekk diisaay mu nekk ay ton mu nekk ay lëndëm lëndëm ci biir suuf jamono boobu alal bi nga jugoo bi nga bàyyi woon ci kaw suuf dajale ko fa lii nga moom ko lii nga sàcc ko lii nga tuyaande ko lii nga luubal ko lii nga jël ko lii nga ñàq ko lii nga liggéey ko yëpp mu lay toog di la fa xaar luñ fi def rek mu fekk la sa biir bàmmeel yéen nañu yàlla musal su fekkee ne bon na bokk yi alquran di ñu wax ci aaya alquran bi ñu léegi ak xadis yu gàtt yi nga xam ne nit mën na koo utiliser ci fu mu ne yàlla ne nangu naa nangul naa leen commerce bu dul jeex ndax lan dangay jaayante ak lan seen bakkan mu al muminin ci ñu gëm yàlla anfusahum wa amwalahum lii nga xam ne mooy sa alal nga yor ko am ko mu tuuti mu bëri yaa ngi wut foo ko mën a def ci toolu yàlla yaa ngi wut foo ko mën a def garabu mat ba garabu kattan waaye garabu leer boo xam ne dalay fekk ci biir bàmmeel mu doon loo xamante ne lu baax la sa alal lépp loo ci def yaa ko moom lépp luñ la ci defal yaa ko moom sa alal lépp loo xam ne yaa ko dajale ba moom ko ba teg ko sa kanam léegi loolu nga xam ne moom nga jàkkaar lool bokkatu ci yow lan moo bokk ci yow li nga xam ne xas nga koo jëriñu ba pare sayyiduna wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci jëf ju baax ci jëf ju yiw mu sant soxnaam bu ñuy wax Aïcha ne ko Aïcha maa ngi génn doxantu ngir yër information bi xew ci biir dëkk bi war a dem ci kër ñoom sayyiduna Abu Bakr Omar Ousmane Ali nga xam ne ñooy saxaaba yu mag yi ngir mu doxantu xam li xew ci dëkk bi moo tax ba responsabilité du la fekk ci biir néeg ci biir néeg lay tàmbale génn ci biti duggaat ci biir néeg ci biir néeg lay tàmbale ñu xalaat ko ñu génnee ko ci biti xool ko xam ko indiwaat ko ci biir néeg bi nag toggat ko daal ci waxtaan ñi nga xam ne ñoo ci war a wax ñu wax ci ngeen sottante ay xalaat mu def sayyidina nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne ko wa amruhum shura baynahum de leen diisoo bu ñëwee diisoo ak ñoom bu paree demaat ba muy dem mu ne Aïcha am na gàtt bu fi nekk mu ne ko ah kay sa waaja kii nga xam ne du nuurey sayyidina Ousmane indi na fi day benn xar benn gàtt mu ne kon defar leen ko bu ngeen nëppee nag joxe leen lépp ba mu des li nga xam ne mooy mbagg kanam bi mu dem jëwaat ne Aïcha fan ngeen toll pare ngeen mu ne ko pare nañu yaa rasulallah joxe na lépp ba mu des ni nga ko waxee woon mbagg kanam nga maanaam tànk kanam bi mu ne ko déet Aïcha mun ne ko ahaka mu foog ne mu kafe diggante soxna ak borom këram mu ne ko Aïcha mu ne ko kaay ma yee la Aïcha ñëw jege ko mun a gis nga li ngeen joxe li ngeen joxe loolu ngeen moom li fi des mooy li ngeen moomut kon bi nga joxee xar ni yépp ba mu dem loolee nga moom ndax loola yàlla mun la koy dencal fii misanil xasanaat li nga xam ne moom nga lekk nag kooku am na borom mooy sax yooyu nga xam ne ñooy nekk di la xaar saa yoo ko génnee ba noppi kon pour woon la ne li nga xam ne moo ne sa kanam loole moom moomatuloo ko lan nga moom li jóge ci yow dem in xayran fa xayroon wa in charran fa charr kon nañu xool bu baax suñu am-am suñu njaboot suñu alal fan lañ koy dugal suñu kattan suñu ñàkk fan lañ koy dugal suñu mën-mën suñu lépp loo xam ne xel la ak xalaat la nañu xool fan lañ ko dugal su fekkee ne xel mi xalaat bi kattan bi xam-xam bi njaboot bi alal bi millions yi milliards yi téeméer yi junne yi dañ ko def ci yàlla sayyidina wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne loolu loolu leen fekk ci biir bàmmeel mu fekk leen foo nga xam ne mooy allaaxira kon wa an laysa lil insaan illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura summa yujzaahu jazaa al awfa bokk yi mu mel ni inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqaatiluuna fi sabilillah fa yaqtuluun wa yuqtaluun tey jii ci jullit ñi nga xool li xam li xew ci diggante Israël ak Gaza la fa xew ci mitit ci fitna ci problème yàlla bi ñuy wax toujours ni ah kay demeen ngeen bennoo innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axway diggante Israël ak Palestine mu ne qadiya bu yàgg boo xam ne xanaa bi sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekkee gaa yi di woor bis bi nga xam ne mooy tam nu nga waaw lu ngeen di wooree bés bi aha tey gën a xam waaye dana laajte ndax nit doomi aadama ñu ne ko bii mooy bés bi nga xam ne ci la yàlla musaloon suñu yonent yàlla Muusa ci pexe Firawna kon bu ñëwee ñu di sàkku di ci jaamu yàlla di ci woor mu ne man maa leen gën a yell ci bés bi ndax bu dee Muusa man maa ko doon kon leer na kon lépp loo xam ne yonent yi def nañ ko إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخاتم الأنبياء وإمام المرسلين ما ne mooy zéro avant un te mooy neuf avant zéro su fekkee ne neuf nga wax dix ngay wax kon compter mu ngi yem ci neuf booy compter un deux trois quatre cinq six sept huit nga ne neuf compter jeex na lay waxaat dix ngay wax da nga jël zéro ak un nga boole ko wala nga jël un ak zéro nga boole ko. boo ne onze ñaari un nga boole boo ne douze un ak deux nga boole treize un ak trois nga boole kon fan la yem mu ne neuf la yem mu a kon sayyidina wa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy zéro boobu nga xam ne moo ñëw avant un di ñëw a kay mooy xaatamul anbiya imaamul mursalin kon su fekkee ne moom moo donn lépp kon kay lépp lu mu moom moo doon lépp yonent yàlla isa ba muy laata dem yàlla am lu mu ko wax ne dama nga sa gaay yaa bani israil inni rasulullah ilaykum man la yàlla yónni ci yéen ñaa isa yàlla yónni wu ko ci àddina yónni wu ko ci juif yi da koo yónni ci ay bokkam ci banu israil mu ne toujours buy wax bani israil lay wax quant à sayidina moussa mu yónni ko ci ay bokkam quant à sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko ci kan ci ñëpp am nal ki nga xam ne mooy aadama alayhi afdalu salaati wa taslimi lahum jamian ñoom ñëpp yal na yàlla julli seen ci ñoom seen wàccee seen leer leeram ci ñoom waaye ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaaw sayyidina rabbina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon su ci jamono boo xam ne adduna lëndëm na kenn ku nekk di xëccoo kenn ku nekk di wax ci coxor ci mbon ci siis ci fiir ci xëccu ci moom ci bugg a moom ci diggante Israël ak Gaza wala diggante Israël ak jullit ñi ñu xam ne kon nañu xool ci subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa lëndëmal nañ na xolu nit ñi ma xelu nit ñi ba bëgg la gëm la yow jullit bi ne kii nga xam ne ñii nga xam ne ñoom ñoo fiy wëttu jumaa ju mag jooju nga xam ne al masjid al aqsa ñi nga xam ne ñoo ko war a wëtt aar ko ñu ngi lay bëgg a gëmloo ne ñoo ñooñu ay toñkat lañ wala ñu ay terroriste lañ wala ñu ay nangam adduna bi yëpp taxaw di xool nit ñoo xam ne soxor mbon rey yàq daggat depuis ay ati ati ati at amuloo lenn lu ñuy xeer ñu yor fetel yor pistolet yor ngànnaay bu dul jeex yor ay bomb lu ne ñu yor ko ba yor atomique lépp ñu yor ko ngir kan duñ nit ngir rey kan la ñu rey jullit su nag jullit ñi yàqal jullit ñi yoru leen lenn lu ñu ay xeer ngeen dajale di dajale di dajale ba am loo xam ne mun na xaw a féetee xeer ci kaw bi maanaa loo xam ne moo gën a rëy xeer wala moo gën a garaaw xeer nga war ko xeex ak ki xeex ak fetal ñu ne déedéet gis nga benn benn benn israélien boo ko jàppee wala nga rey ko adduna bi yëpp jóg ñoom ñooy ñan jullit benn ñaar ña seen bopp ñaari indi koo xam ne azillatin ala al muminin izzatin ala al kafirin bu ngeen di fo danaa indi koo xam ne dana nekk njëriñ ci yéeféer waaye mu nekk toroxtaange ci yéen yal nañ ci yàlla musal te yàlla buñ ci yegg mu mel ni alquran yi wax ak ñun innamal muminuna ixwa waaye loolu de yàllaa ko wax jokko yonente bi mu indi ñu ko waaye ba léegi ñun ñu ngi koy foye di ko caaxaan mu mel ni kon ñun li ñu war tey mooy kenn ku ci nekk nga booloo dajaloo ak sa mbokk balaa ngay dajaloo ay mbokki jàmbur dajaloo ak say mbokk jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu ngeen nekk ay benn benn di bëggante di soppante boo ko doon indi misaal tey rek ci ñun Sénégal ñaata nit ñoo fi nekk ñaata xeet ñoo fi nekk ñaata tarixa ñoo fi nekk ñaata parti politique ñoo fi nekk est-ce que parti ak parti est-ce que bëggante nañu da ngay wax ne déedéet seen intérêt moo leen boole moo leen dajale est-ce que tariqa sax ak tariqa ju bëggante nañu ah kay mag ne day bëggante woon nañ juboo xam ne tariqa dañ koo def rek ngir lu ñu yéegee ci kaw ngir àgg ci sayyidina nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye te ñu def ko jaase di ko xeexee kon est-ce que juboo nañu déedéet intérêt personnel kese ak ñu ñoo fi ëpp ak ñu ñoo fi man yéenee ñan su fekkee diggante famille ak famille ci sant yi ban sant nga am bu gën sa morom ban sant nga am bu gën kawe saba bosu morom toppal sant boobu nga topp bii ngeen toppante di toppante di dem ba ci ñeenti maam ba ci juróom fukki maam ba ci ñeent téeméeri maam ba ci junnee maam balaa nga yegg da nga fekk ne yow aadama nga bokk kii dem bokk ci aadama kullukum min aadama wa aadama min turaab kon lan su fekkee ne nag diggante bëgg ak bëgg sayyiduna nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al mar'u maa man ahabba bu àllaaxira jotee kenn ku ci ne ka nga sopp ka nga bëgg nañu ci lii xew ci àdduna bi kenn ku ne yaa ngi suivre information yi xew ci àdduna gis ngeen ne njiitu Amérique wax na la ko jaxase ko ak doomi aadama yi jaxase ko ak jullit ñi fenal ko ba mu jóg ne dana jël lépp luy ngànnaayam yóbbu ko pour fagaagal jullit ñi ah kay loolu moo am sayyiduna nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko bañ ko bëggee jaxase ay xeet jaxase ko ak nit mu ne ko he taxawal in jaakum faasiqun bi nabain fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum naadimi in jaakum buñ la dikkalee in jaakum buñ la indilee faasiqun moom nit ku kàccoor bi nabain ci information fa tabayyanu na ngeen ko setkantal fa tabayyanu ko xool bu baax an tusibu qawman bi jahaala balaa ngay jóg tëb dugg ci kaw ay xeet def fa lu bon wa def fa lu ñaaw wala xeex fa wala jaxase fa nga noppi nag commencé di ko rëccuwaat lii moo dal président Amérique diggante ñaari fan yi ak ñetti fan yi wax nañ ko ne ko jullit yaa ngay rendi juif yi jullit yaa ngay yàq ñu ngay dajji ñu ngay ñu ngay mu mer rek ak mer booba mu mel ni bi muy wax dafa fekkee ñu ñuy rendi ak ñuy mu dem ba ci kanam ñu xam ne kon kilifa warul kilifa duy fen kilifa duñ ko jaxase kilifa duñ ko boole ak ñi nga xam ne ñooy njaboot kilifa kenn du ko foyee rawatina muy réewum lëmm nga xam ne ay junne junne ay millions yi millions noo dajale jox la seen baat ne kaay nga jiital ñu réew mi rawatina lu mel ni ki Amérique ñu commencé di wàccaat ne déedéet loola day bu ko waxee itam dañ ko ko wax loo ndax diw moo ko ko wax maa maanaam Netanyahu moo ko ko wax mu mel ni kon adduna bi mu ngay jaxasoo. ndax da ngay ci ca loola wala da ngay dem foofa déedéet xakay da dangay dem nga jàngee ci lii xew ci àdduna nga jéem a defar nag sa bopp yàlla lan ko foofa mënatuñoo dem mënatuñoo ñëw kon xanaa kon nga jël sa responsabilité yow tam nga mën a jàngee ci loola ne kon en tant que kon kii moo def lii te pourtant ñu réewum xeexee ba jox ko alal ba defal ko loo xam ne bu toogee ak naataangoom ñu xam ne kii am na lu mu yor yow defal nañ la ko Afrique fii am ci benn président boo xam ne boo toogee ñu xeeb la alalu askan ba jox nañ ne ko xam-xam bi jox nañ ne ko ubbi nañ la yëpp jox la alal bu dul jeex jox la avion jox la essence bàyyi laat lépp nga defaral ñu kon benn sénégalais bu mu des ca dax la benn sénégalais bu mu des ci géej gi benn sénégalais bu mu yàqule benn sénégalais bu mu yàqule ci lii nga xam ne mooy mbay mi wala mu nekk koo xam ne te ne nappkat la wala mu nekk koo xam ne dafa nekk fële ci àll ba di ay nag wala sàmm ay xaram su fekkee responsabilité la yàlla ne waqifuhum innahum mas'uluun na ngeen taxawu ndax ñoom ñooy responsable ci lii xew ci àdduna muy ñan ñi nga xam ne ñoom la ñu jox suñu àddina ne leen ngeen jàngal ñu ngeen xamal ñu ngeen yoral ñu suñu àddina buñ ko defut kenn ku ne na préparé li nga xam ne mooy bàmmeelam amul kenn ku des ci kaw suuf amul kenn koo xam ne liñ la jox ci matukaay pour nga aar sa bopp ci àddina bu àllaaxira jotee wala ci biir bàmmeel nga am ko dañ lay suul ca suuf sa ñëwaat toog la nekkoon ñu joxe ko keneen donn ko ñun di ko donnante ko donnante say soxna ñu donn leen say njaboot tasaaroo kër gi ñu génn la ca suul la lépp loo xam ne yaa ko moom moomatuloo ko yàlla ne man maa koy atte jël leen ngeen doxalee ma ko nii ak nii yuusikumullah fi awlaadikum li dakari mitlu habbil unsayayn mu indi nag miraas ne man maa koy dogal man yàlla maa leen bi wax ku ci nekk ñaata la war a am kon balaa booba nañu xisaab suñuy bopp xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu nañu jëriñ suñu bopp nañu xoolaat suñu bopp nañu yor suñu bopp nañu indiwaat suñu xel ak suñuy xalaat ci lii nga xam ne muy njub bi ñu yàlla sant ci alquran sant ñu ko ci tawraat min allah fastabshiru bi bay'ikum alladi baayatum bihi wa dalika huwa alfawzu alazim wa dalika huwa alfawzu almubin kon bu ko defee kenn ku ci nekk ñu taxaw xam ne adduna bi jeex na ba noppi nañu rafetal suñu ginnaaw suñu njaboot yi ñëw ci ginnaaw nañu rafetoo kenn ku ci nekk ak bi nga yoreel sa morom delloo ko ko ku ci nekk li nga yoreel sa morom delloo ko ko kenn ku nekk li nga fasal ci sa xol ci mbon ci coxo nga génne ko yooyee du dem fenn lu dul day delloo dul siwaat ci yow ndax lan man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid insha allahu rabbil alamin amuñu fetal bu ñu xeexee amuñu visa bu ñu demee waaye nag li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ne jullit boo gisee loo xam ne man a aminkum munkara boo gisee loo xam ne la métti la du naqari la nga jéem koo dindi moo xam ci sa loxo moo xam ci sa xel moo xam ci sa xalaat moo xam mënuloo nga toog na muñ ko kon incha allah li ñu man mooy buñ jullee ba noppi ñu defal leen salaatul ghaib fii ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo dee ca Palestine ca Gaza ak ci adduna bi yëpp dee fi sabilillah fekk sa kay rëy la rëy la ci dara du dara du tus xanaa kon nga amal loo ko mën a defal nga julli ko ñaar rakka wala nga wirdil ko wala nga jàngal ko alquran waaye naka la ñuy ñaareel nit ku dee la ci ëpp solo mooy ñu jullee leen ñu jullee leen salaatul gaayib ku dem ci ngir yi da nga gis salaatul gaayib lan la ak lan moo koy waral ak nu muy demee kon bu defee insha allah réew maa ngoog suñu réew la ñun ñëpp kenn ku nekk jël responsabilité ñooñu politique ñu leen di wax ne yéen a ngi xëccu àddina bàyyi leen xel addina addina moo leen mag addina moo leen man te moomu leen ko yàllaa ko moom kon booy dugg ci addina wala nga soxla ko wala nga bëgg koo jiite wala nga bëgg koo yor xoolal borom àddina nim la ci waxee kenn defu la ko du parti politique bi du bële du bële yow yaa ko def sa bopp ndax yaa jaarul fi nga war a jaar waaye su fekkee ne da nga bëgg nguur nga wut ko fi ñu ko war a wutee wut ko ni ñu ko war a wutee ko fi ko war a jotee nga jël ci def ci xel ak itam yéene bi mooy nit ñi na noppalu nit ñi nañu baax yàlla ne man maa lay jàppale man maa lay dimbale man maa lay yoral yéen rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasana wa qina adaba annar wa adxilna aljannata maa al abrar ya azizu ya gafaru ya rabbal alamin allahumma rabbi hab lina al iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من القانتين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 7 TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, 7 TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal 218. 7 TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO au canal 10.